boo téléphone nee na daf may jox euh, benn appartement 700 millions euh, bëccëg nga nekk sama doom guddi ñu am neneen lu ñu mel bi maanaa Aby Ndour dafa wax ne euh, Atepa dafa def li ñuy wax harcèlement sexuel maanaam daf ko topp lëjal ko ngir ñu tëdd ngir mu nekk corom te loolu yoon da koy tere bi nekk Aby Ndour ñun mu am place boobu sax moo ñu gënal tubaab di ko am musu len kañ ngeen gëñu ci suñu sunu abay do taxaw taxaw bok bok ben ben bëb di waxtaan ci am sante jalousie len dul manam ñu ñaan wala wala di jëm def li ñu wax la victimisation di jëm yërem teul xol len ma jigen la xol len ni may def man waxon na len def len tank sénégal def len tax na jaajëfatee jaajëfatee sama gars yi bon man la Mister Shake depuis euh, New York dama bëggoon def benn vidéo rek ci euh, Youssou Ndour ak Babacar Ngom ak euh, Aby Ndour ndax Youssou Ndour Babacar Ngom dafa génn mu ne Youssou Ndour ci boppam moo ko woo di jéggalu di jéggalu ci li ko abinduur Ndour def Babacar Ngom noonu Youssou Ndour daf ko woo ne ko Babacar vraiment sama yaay moo ma woo elle est vraiment malheureuse maanaam yaay Youssou Ndour dafa am lu ko naqari ndax lii la Aby Ndour di wax Babacar Ngom ne ko mais lan la ma Aby Ndour di wax yow loolu yaa ma ko yëgal après si la ko Youssou Ndour wax ne vraiment moom mu ngi jégalu ndax Aby Ndour post dafa génn ay post maanaam dafa génn ay vidéo yu bari ci ci Facebook ñëpp xam nañ ne Aby Ndour loolu la def daal di wax ne KFC li nga xam ne mooy Kentucky fried chicken genre restaurant yuy jaay ginaar um, américain ginaar yu ñu saaf KFC boobu kii moo ko moom Babacar Ngom ak doom bu ñuy wax Anta Babacar Ngom dend ak place su ci booru um, corniche nag Aby Ndour moom dafa ne jëkkëru um, Anta Babacar Ngom moom moom moo bëgg toj foofu moom moo yónni benn kilifa ay autorité ngir ñu toj ko ba Aby Ndour ci bopp sax nee na jox nañ ko benn këyit waa Descos jox nañ ko këyit ne ko sa place bi sa buvette boobu dañ koy toj waaw ndax foofu kenn waru fa tabax dara. te loolu loolu nag ay jiin yu doy waar la yoo xam ne day yàq deru Babacar Ngom te Babacar Ngom moom nee na yëgul tinul moom foofu Kentucky Fried Chicken boobu sax place boobu sax ñoom moomuñu ko ba naan dañuy jëlaat beneen suuf jàmbur. waaw kon kon diggante Habib ak Babacar Ngom kan moo wax dëgg man naa leen man gëmuma Habib waxoon naa waxoon naa leen génn naa benn vidéo di dal ci Abdou Ndour di wax ne Abdou Ndour est-ce que elle n'est pas la honte la brebis galeuse de la famille Ndour lañ maanaam di wax ne Abdou Ndour boppam dafa rusloo famille Ndour man génn naa di ko laajte te Youssou Ndour jox na ma dëgg ndax Youssou Ndour bu demee bay wool Babacar Ngom di ko jigul nan ko baal ma parce que xam na ne Abdou Ndour wax yi mu wax dafa ëpp ba pare xam na ne Babacar Ngom jéemul sàcc suufu Abdou Abidou tamit dafa wax ay wax yu ñaaw wax ne Kentucky Fried Chicken ñoom ginaar yi ñuy defar baaxul mal buuf la nag seen ginaar dafa am deret lekk américain day joxe obésité maanaam day réyloo nit da leen di jox jabet te loolu nag abi moom foofu côté boobu moom wax na fa dëgg ndax man fii laa nekk Amérique laa nekk te xam naa ne Kentucky Fried Chicken seen ginaar yi moom la nit américain yu ñuul yi di lekk loolu moom baaxul wax dëgg Aby Ndour côté boobu moom am na lu mu wax dëgg foofu parce que moom nee na man ay jus laay jaay ay jus yu yu yu naturel yoo xam ne amul dara lu ci loo xam ne day gàllankoor nit Youssou Ndour nag looloo tax mu woote di di jéggul man waxoon naa leen bàyyi leen bu leen tëll rek ngeen ne damm na Aby Ndour Aby mënul ñëw rek am dëgg ci Atépa am dëgg ci Babacar Ngom ak Anta Ngom yenn yi xamuñu la lay ndurul xamuñu ndax iñaan lay ndurul jalousie lay ndurul maanaam iñaan iñaan wala di jéem def li ñuy wax la victimisation di jéem a yërëmtalu xool leen ma jigéen laa xool leen may def man waxoon naa leen def leen tànk Sénégal def leen ndax ndax Babacar Ngom ñoom ci boppam nee na man damaa waaru ci yàlla nee na foofu ñun bëgguñu fa dara ñeneen ñun suñu place sax dañ ko loué fàq kon abindu mën nañ jàpp ne foofu danoon yokk parce que moom wax na ko abindu nee na sax sama xol place boo xam ne nee na depuis 91 la xaw ma 2011 ñu jox ko mais moom dafa yéex def def fa dara dafa yéex def fa dara ba tey ñu ne dañ koy toj ndax étudiants yi dañ nekk foofu ñoom foofu la ñuy féexloo yett ko ci xeer yi ñeneen Aby Ndour moo leen fa génne Aby Ndour si boppam nee na moom moo fay camion bi camion bi daal di jël seen i bagage daal di ko sax daal di ko yóbbu feneen kon Aby loolu waxoon naa leen tamit ci ci Atepa def leen ndànk ndax Aby Ndour di wax daf ma Euh, woo téléphone nee na daf may jox euh, benn appartement cinq cent millions euh, bëccëg nga nekk sama doom guddi ñu am neneen neneen mel mel bi maanaa Aby Ndour dafa wax ne Atepa dafa def li ñuy wax harcèlement sexuel maanaam daf ko topp lëjal ko ngir ñu tëdd ngir mu nekk coow te loolu yoon da koy tere Atepa ci boppam génn mu ne loolu du dëgg ñetti at yii musul woo Aby te ku dem orange compagnie téléphone ba bu ñu xoolee dinañ xam ne loolu du dëgg lii nag moo tax ma ne ñoom Ahmed Aïdara dañu war a def ndànk balaa ñu ñëw rek di wax ne Aby Ndour la faral ak ñëpp képp ku jug li tax parce que yow Sall nga faral Aby Ndour Khalifa Sall la faral bu mu nga ne da ngay faral Aby bu dee yow da ngaa bañ Youssou Ndour ah moo tax nga ànd ak Aby Ndour loolu dëgg gis nga nit bu dara amee da ngay xool fan la dëgg nekk Aby ñun mu am place boobu sax moo ñu gënal tubaab di ko am waaye nag bëgg place warul tax nga yàq deru nekk ku mel ne Atépa nekk fi ñeent fukki at nekk architecte ah jël xaalisam avec Atépa ci lu mu wax nee na jël na trois cent cinquante millions daal di defar place boobu place du millénaire am na lu mu ci lu mu ci lu mu ci def Babacar Ngom kenn mosu ko dégg ci dara abindu di wax yaa def lii leen nengeleer yaa def nii waa nengeleer yaa def nii kon lii ba mu ko defee du ma du du du ma bett wax dëgg tey defe naa yëf yi leer nag ndax mosu leen kañ ngeen gëj a gis Youssou Ndour ak Aby Ndour taxaw taxaw bokk bokk benn benn bërëb di waxtaan di jàmm sante ñëpp xam nañ ne Youssou Ndour ak Aby Ndour seen seen diggante dafa dafa xajam waaw Youssou Ndour ci boppam waxoon na ne iñaan dafa am nee na di nga bokk nit neeg bàyyi sax mu iñaan la Youssou Ndour ba muy wax loolu ñun suñu yi dafa ne yar ne xëy na boo demee Aby Ndour lay waxal ndax Aby bàyyi na fi Youssou Ndour Youssou Ndour ba mu président mu ne du ànd ak Youssou PS lay àndal yow koo xam ne sa frère sa sa sa sa mag lu ne mu def ko Sénégal te yow boo amee tur Youssou Ndour moo tax boo wayee Youssou Ndour moo tax nga way ah nga bàyyi ko fi buñ la laajee dégg naa mu ne Thione Seck mooy woyam mooy woykatam Thione Seck way na ko fi way bu rëy dégg naa sax mës liggéey ci beneen télé bu dul télé Youssou daal loolu yëpp sax abi bu ko neexee mu mu def lu ko neex waaye ñun li ñuy li ñuy wax rek mooy bëgg dara parce que yow sa bopp nee nga place boobu dafa sax si sa xol bëgg dara wala tax nag nga yàq der deru ay nit yoo xam ne ah dañ fi nekk ñeent fukki at juróom fukki at kenn musu leen dégg ci dara nga bëgg xaawi seen sutura loolu ñun loolu la ñu wax ne ñun am nañu chèque Aby Ndour waaye Aby mu am place boobu ñu bañ ko toj ñu ñu bañ ko toj sax moo ñu gënal ndax fi am place parce que place bi ni mu ko gisee wax dëgg gisuma fa dara lu ñaaw tabaxu fa loo xam ne dafa yàq foofu te defar na fa am na am na Euh, espace boo xam ne nit ñi mën nañ fi ñëw féexlu waaw mais nag bëgg loolu warul tax nag ngay ngay yàq def ñun foofu rek li ñuy waxee voilà gars yi ba beneen.